Ah! seen jom kon ñii ñooy ñi nga xam ne dañ leen présenté ñenn ci jotaay bi kon dañuy ñu ngi sant ci ñi nga xam ne ñooy tuddukat yàlla yi ci njiital ki nga xam ne mooy tam seen Touré wax dëgg yàlla yàgg nañ fi ba tudd nañ yàlla tudd yàlla yu neex macha allah xol yëpp bëgg nañ ñu ngi leen ñu ngi leen ci ñaanal yàlla yàlla wëttu seen i baat waaye ci yàlla garanti leen taxaar leen ci béy Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ba léegi nag ñu ci li nga ne mooy jotaay bi comme li nga xam ne loolu lañ baaxooyee di ko def ci jotaayu pay bi mooy balaa ñoo def dara dañu ubbee ak li ne mooy kitaabullahi alkarim mooy alquran alkarim dañ Nazir Seck doomu Sëñ Daara Seck bu ko defee mu jàngal ñu ay ayat min kitaabil hakim ñu barkeeloo ko balaa ñoo commencé li nga ne mooy jotaay dafa من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين ومن حمي ينتظر ومن حمي ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين هذا يتيما فآوى ووجدك ضالا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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عمة الشيخ أبدل لنا بهذا المعدلي وتحت فيه بنظرة تحت لنا الحمد لله نجي صلي على الله دي جلي تيرن دم النبي صلى الله عليه وسلم دي قرم xalifaam Cheikh تجاني دي قرم gërëm seen يوم ñoom ñaar saarul مولانا سيد إبراهيم Ibrahim Niass قرم bu baax a baax ci li ñu defal waaye ginnaaw bi sante gërëm nga xam ne ci ñi tëbboo tax tey ñu taxawal lu mel ni dañuy gërëm képp koo xam ne yaa ngi fi teew góor jigéen mag ndaw képp koo xam ne rek teew na gis nañ la gis nañ sa teewaay yàlla yàlla defal leen ci tawféex te dimbal leen ci zaahir ci baatin defal leen ko seen misaan xasana waaye ci teewaay googu ñu ci ciy gërëm sëriñ bi ak Cheikh Mamadou Samin Ndiaye mi nga xam ne tey bu ñu mënee xool bay xemmeem dara ci ñun ci yàlla wala ci njub wala ci ñëw am yaakaar ci ñun ci lu mën a doon tey moo ñu formé ñu teg ñu ci yoon yoon boo xam ne nag bu jafe bu tumuranke ba boo génnee dajeeg ñeneen ah, da nga xam ne ci yoon bu tumuranke bu jafe ah, la teg te yoon boobu mooy yoonu góor yàlla yu mag yi mooy yoonu bàññees mi àndal mooy yoonu mag ñi ko toppoon te ci moom loolu rek la nekk ci loolu rek la nekk ci ndigal loolu ñu ko jox propagande du ay mbiram ah, naka sudul noonu du ay mbiram ci lañ ko sant rek ci loolu la nekk te incha ñëpp dinañ gis liggéey bu sell boobu bu barke boobu ak ci ndigal loolu muy sàmm di sàmm ngërmaane loolu ñu ko gërëm di ñëpp dinañ ci teg seen bët incha allah waaye kontaan nañ bu baax ci ñuy jàpp ci jotaay bi ginnaaw loolu ah, avant ñuy àgg foofu sax li ñu waroon a njëkkee defuñu ko ginnaaw ñu santee sëriñ bi imaamu xadara dañ ko war a sant Seydi Mansour Diop nga xam ne mooy imaamu xadara bi serigne mom la fal imam kuris daf ko tamit muqaddam Jidal ko ci tarixa bi jiital ko ci fayda bi ñu ngi ne chamoy tew imam masek imam al muqaddam mubarak masek ndaw di ku bëgg serigne di ku baax di ku liggéeyal serigne ñepp xam nañ lolu ci taxawaayam ci serigne yalla yalla guddal seen fan gëna wëral cër gën dimbali gën leen a dëgëral ah di wax rek jotaay bii ñu ngi ko sos ngir bëgg lu baax ngir def lu baax ngir wan suñ sëriñ ne yoon wi ñu taraaseel ne nañ ci aw nañ sàkk lu baax nañ bëgg lu baax ginnaaw bi mu defee ci ñu li ñuy def ba pare ba xam ne mën nañoo dugg ci société bi mën a jëflante ak ñoom ba kuñ soppiwut mënoo ñoo soppi loolu bi mu ko defee ci ñun ñu ñu gëm ne am yëg-yëgu ne ginnaaw bi ñu ci mayee ndigal ne dañoo war a woote ci yàlla di dajale jaam ni di def euh, ay majaalisul xayri nga xam ne comme bu mel ni jaam ñëpp dajee ñu tudd yàlla mu nekk lu tumuraanke nga xam ne Cheikh Tidiane wax na ne moo gën wird yi ak askar yi ci yàlla te moom lañ def nii woo suñ sëriñ biñ gën a bëgg nga xam ne moom rek lañ jàpp ne moo ne ci alam bi ginnaaw nag ku nekk jox nañ la cër suñ rakki bàyyi dañ koy jox cër suñ magi bàyyi dañ koy jox cër waaye sa baay rek moo doon sa baay te moom mooy suñu baay ci ruux defal ñu di ñu tëb daay man kon loolu mu ñu tee sant ñi ngi yëg li ñuy defal am na ci mën a am na ci mën doy ñu ngi koy yëg bu baax a baax a baax a baax kontaan baax a baax ci képp ku fi teew gërëm nañ ñëpp waa koñ bi gis naa leen jigéen ñi teew nañu bu baax a baax góor ñi ñoom jëwiñ Cheikh Amar jugee na fi léegi si yëg nit ki mun ta weesu sen tour yi ñi def tuuru jigen yoy ñuy def sen groupe whatsapp lañ ko duggal di yëgle jotaay bi té ñom ñëpp téwé nañ lañ ci gëreum dëkkandoo yi teew nañ ñu baña guddal dañoo kontaan mu ñu si woon ñàkk a wax il fallait ñu wax ci ndax bis bu mel ko taxawalee mu nek ngir yalla yalla ay kese moo tax ñu def ak wéyee ndigal te xamna señ bi lu tuddu la nga ñam rek loolu lu war a la moo tax rek ñu bur rek juk ne ah señ dañ koy def waaw jolaat ga ñu dañ ko def jamono xadna jafé jafé bari na ñu juk na dañ koy def te alhamdulilah assi nañ ci cëppaandaw li ñu ni señ bi tok na baas nañ ak lepp tum bepp jafe jafé luñ ci am rek lépp luñ ci am rek xamnañ nañ ne xéewal yalla la te xéewal yoy dina wacc ñu dina wacc képp ku fi tew waaw yàlla xatalul dafa yaatal kon Seydou muhammad dañ doon sànni kaddu rek di gërëm rek lay delloo kàddu bi macha allah alhamdulilah hasbunallah bi buñ sañoon dañ koy tënk rek ndax fi ne nit ñi amuñ jot jot gi dafa te bi dafa xat kon moo dañuy tënk rek ay baat rek ci sëriñ bi ndax wax ji sax daf ñoo xaw a bi ñun pour ñu wax si moom sax problème la ndax nit la koo xamante ni jaam yàlla la ndax deg nañ Baye radiyallahu anhu Seydi Aliou bi Baye génne aduna bi ñëpp ñëwé sédé mom bi ñëwé ñëwee ko dafa wax na julit haqqan la kon loolu rek doy na sédé sëriñ bi julit haqqan la ku gëm sëriñam la ci ñu sëriñ bi ñi wax ci baat gàtt nga xamné ne sax tane la lu jafe te yomb la jafe na lool moy sëriñ ndaara mi set jeudi alxames bu nek mu hebal ñun wa daara ji neen dem leen si kër Cheikh mohammed raq bi ngeen wàcc fa kamel man diiraa ma nekk daara ja ba daanaka ma fay jógee chaque jeudi dix heures onze heures midi danañ dem waa daara ja dem wàcce kaamel bi bu sëriñ bi génnee mu xat mu ñi bu génnut ku man a xat mu ca taalibee xat mu delluwaat loolu moom wa sahida sahidun min ahliha kon tey bu bis bii ñëwee kenn ci njabootam gi njawootam ñoo tuddee ko sëñ daara fekk sëñ daara moom dem ma ci suuf waaye mu ngi des a xol yi kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax kon gars yi nañ lebal yàlla lebal yàlla rek moo baax yàlla xaasal na la yow Mohamed fii la yàlla Saalum la juddoo moom sëñ daara mille 1953 ñi 52 ci bisub aljuma ci rajab tomboog bis bi Cheikh Ibrahima juddu mu yow saydul ayaam yow a jumaa ci 15 rajab dundam yëpp mu def ko ci jàng ak jàngale ba ni ko yàlla mu nekk maye mu nekk tëri alquran jaar-jaar yi dañ koy tënk du fi xaj parce que sëriñ bi lañ bëgg a déglu moom la xaar waaye bi ñu rek ñu xam ki ñu tuddee bis bi gën a néew mu nekk mooy kooku nga xam ne dundam bi yëpp da ngaa si jàng ak jàngale bi mu nekk xale daanaka moo jàngal boppam ba mokkal alxuraan daanaka rek kon yàlla dafa def mu judd rek xam xàmmee tegee ca yoonu maam ya ak baaya yooni maam ya ak baaya nag mooy lan mooy jàng ak jàngale moom da koo doon ci ay waajuram danaa tudd waajuram mu góor muy Ali Maodo ba maama taaram ba ni nga koy liimee ba mu xàgg ci bët ibnu Naafi moom sëñ Daara sekk foofu la maamam boo koy dàq fa lay ñibbi kon kooku laa xarwa bu nekkee xaadimul xuraan saahibul barnaamij bi wax na ko xaadimul xuraan doomam ñëw jàng-njàng mi nga xam ne moom itam alwaradu siru abdihi ñu ngi ñaan yàlla yàlla teg ci njaboot gi loxo Cheikh Mohamed Nasir sigil nañu te tey sax xam naa amuloon aayu pour jàng yéen a ko imposé mais amuloon aayu pour jàng parce que ñun xam nañ ko jàng naa jàng ñu dégg waaye alhamdulilah maa ngi saako sëriñ mi nga ñaanal ko yàlla ak mboolem ay magam nga xam ne muy xalifaam di bàyyi sa Seck bu ñuy wax fii ci kaadum la ñuy waxee moo ñëwoo mu ne Momar mii dafa wan àllaax ak sëñ Daara àllaax ko rafet la mu wax yëpp xajut si waaye mu ne tuddee na ko bis bi xam nga ne loolu ko lëre la bu ko neexoon am na ñu am xaalis ñu ko mënoon tuddee mais ngir yàlla la waaye nag tuddee ko koo xam ne moo gën tuddee ko sax président parce que liggéeyal na ci askan wi réaliser askan bi loo xam ne président yi jaar yëpp réaliser wuñ ko liggéey bu gënal yàlla nga kon di ay téeméeri téeméeri nit ñoo xam ne sëñ daara mii ci kanam lañ sukk mu jàngal leen ba ñu tëri alquran ca daaraam ja xam ba foo laaj ba ci oustaz mbay mii ma àndal tey jàng na tarif alquran jàng ci téere yi ñu war a jàng yëpp ci réew mi jàng ba am bac état arab ci malaaji abdoulaye te ay moromam mënu ma leen lim maay ki si gën a néew alawa gën cee gàtti aliwa te ñooñ boo leen doon lim ma lim bi ay junne junneel yu fa jaar te jaar giñ fa jaar sëñ daara laaju ci seen i parents benn dërëm moo leen gadul seen njàng gàddul leen seen lekk gàddul leen seen xaaje zahir gàddul leen seen xaaje baatin bu ñu amee soxla zahir fu mu mën dina dépassé moo xam Sénégal la wala Gambie la bu ñu amee aajo yoo xam ne nii ba tey safaanu bànneex la fu mu mën a rek dina def tout benn bis sax le wala taalibe yi xam ñetti programme wala ñoo xam ne duñ ay taalibe sax waaye jullit leen yoo xam ne nii xam nañ ak sëñ daara laaxa dina def ci surne bi lu muy sëri sëri nga xam ne distance dëkk yi dina mat vingt kilomètres trente kilomètres quarante kilomètres mu mën a compter ñetti dëkk wala ñeenti juróomi dëkk yoo xam ne ku nekk sa sa programme def na tout ba ba teew fa ba nga gis ko rawatina nag détails yi nga xam ne jotaay alxuraan la Saalum dina ko jooy te du denc ko jooy di nga compter téeméeri téeméeri dëkk Saalum yoo xam ne bu ñu amee programme balaa ñuy kontaan ñu ne ana sëñ daara xaadimul xuraan mu ñëw ñu jox ko xarma gi mu jàng ñëpp dem xaybu ba si ko ko teg yi nga xam ne sura faaw yi nga xam ne ñu ngi Pikine nekk xalifa Cheikh Tidiane radiyallahu ci Afrique de l'Ouest bu ñu dajee ñoom ñëpp nga mën a tonte si ñoom fanweeri sirofa yu toog buñ demee ba war a tëj junne junne kaamil yooyu nga xam ne buñ ko mujjee jàng soixante-dix kaamil soixante-dix mille kaamil yi lu mu néew néew mat na bañ demee ba tollu ci war koo tëj dañ ne ko sëñ Daara Souleymane Seck yaa jàng xatma bi ñëpp naan amin ci karam sirofa yooyu noonu surtout yéen ñi nga xam ne yéenay ci keppaaru sëriñ bi maa ngi sàkku ci yéen ngeen xam ne liy jëriñ taalibe mbëggeel la ak dëggu te Cheikh Ibrahima nee na samay bagage ñaar yooyu la ولا ينال الا ما عندنا الا بالمحبه والصدق دي نيك سي مان تامي باغاس كين كين تي ندوغو ام لودو مو ام بجيل اك توفال لول ناك اسا مانكي واي كولا رو تي لول لا راوي طالب لول ريك لي راوي مورامم سيرين بي ني وقتاني سيرين دار سك يالا ماي نكو نياري دغلون كو حمول اك محبه لا تي خم فيم جيمون موي صدق توجه بو خم بو مات تي بير اتي بيتي با دوندي نكو انما المرء حديث بعده فكون hadisan hasanan li man waxaa dem na waaye jëfa ma ngi fi di fi des liggéey ma ngi fi ba illaan yari solal arda wa man alayha liggéeyu sëñ daara di fi kon yàlla yàlla fayal ñu sëñ daara yéen ñi nga xam ne yéen a bii tuddee ko ko ñi ngi fasante géen ko lëre fekk ñi ngi dund duñ ko bàyyi yow yaa xam saraf fii ci ndagaaru nga jëkk tuddee sëñ daara bis boo xam ne dañ koy rendre hommage taalibe mi nag mbooloo mi yàlla xam nu ñu toll waaye ñun ñaar ñun ñetti ñii la yàlla dogal ñu am force pour jéem a teew xaw naa bettee beneen bi am na ñoo sax dañ ko yaakaaroon guddi la pour ñoom ñu ñëw fanaan si guddi ci waaye nag nañ uutu ñëpp rek nga nangu ñu ngànt xëy na yoon day am si beneen même beneen bu ñëwee itam nañ ko yëg rek buñ ko tuddee jàpp nañu bis yëpp ñëw yëpp sëñ daaraa ko sa programme ñun pour loolu lañ jàpp beneen programme bu amati rek nañ yëg rek lii rey na ci ñun duñu ko fàtte ñëw nañ ci ndigal al xalifa mooy bàyyi Cissé sa lépp sa xarit sa àndandoor sa lépp wax nañu lépp waaye nag li mu waxoon ñu wax ko xam bi nekkul fii fasaadu gi nawut fii njub gi nekkul fii waaye nga nangu ñu ngànt rek waaye bëggoon nañu wax lu gën a mat lu gën a jot lu ci njumte ci jàmb réew bii la bu fasahaat yi bu gàtt xam-xam bi waaye liñ bëggoon a wax war naa gën a rafet gën a mat waaye beneen yoon ñi ngi jégalu di ñaanal ñëpp di ndokkeel Cheikh Mohamed di jégalu in uridu illa islah maxtataxtu wa ma tawfiq illa billah la tawakkal wa ilay unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mustafana wa ala alihi wa azwajihi وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن يخرب المكتوم وبرزق المعلوم ذو الأخلاق شيخنا أحمد التجاني أميد رجال الله ورضي الله عن صاحب مقاماته الشيخ الإسلامي وسعادة الأنام وبركة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم من الحاج عبد الله رضي الله عنهما مكي مكي السلام عليكم ورحمة الله ñu sante yalla bu baax ci daje bi ngir yalla ñu ndokel mbolam julit ñi fi tok ak mbokki talibé nga xamné yalla rek mo tax ñu daje ak magal ngir yalla ak sakku yool ci yalla ak dundal suufas yalla ci top ko loolu ku ci teewal nga ndokkeel sa bopp nga xam ne yaa ngi ci shay'un azim ñoo ngi jagleel ak cant ak ngërmaane kilifa yi nga xam ne ñoo yëkkati seeni kàddu ndalee ko ci al ustaaz al imam al aalim عن علامة عن معلم سيدي محمد جام دا خامني موغي جوغي تي توكي من كرم جبل الى هنا سفرا من الله الى الله تبارك وتعالى ونكون صاحب الميكروفون امام لا borom xam-xam la ku jàng la waaye jàngalekat la xam nañ ko ci suñu sëriñ alxaaji barham rahimahullah taala wa nafaana allahu bi barakaati ñu yàlla jëriñ ci barkeem génne na ko mu dem Maroc jàngi ngir def tajriba luxal arabiya te jangon na ci keppaaram def nako ko muy jiite tarawih ci masjid bi nga xam ne hadj barham mo mak mo ci diine bi mo mak mo ci fayda bi moko ko def ko ilima kon tukem bi tuké ci ci yalla la jëm ci yalla ndax dafa bayyi ligéyu diine ñew ci bésu diine ci ligéyu diine kon ñom leen di defal taarif ci saaxibu microphone di Seydi Mouhamad Thiam mi doon wax ndax ngeen xam moom it ban taxawaay la am ci maydaan bii ñu nekk ñoo ngi ndokkeel ba tey al oustaz bi nga xam ne di Seydi oustaz Darame ci kalimaatukum yi nga xam ne kàddu yi yëkkatiku la ay kàddu yu rafet di xamle góoru yàlla boo xam ne liggéey na ci diine ji liggéey na ci tarixa bi liggéey na ci fayda bi mu liggéeyalee ci diine ji nag dëgg dëgg liggéeyal diine ji fi mu gënee mag mooy liggéeyal yàlla ci téere yàlla ndax coow li lu mu bëri bëri bëri bëri mm. ci la yàlla waxe ak jaam yi يالله تبارك وتعالى دفعنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تخي الله مو نك نك جانجلك مو مي بندي جاني يا صلى الله عليه وسلم مي بنت يالله وحنا أهل القرآن هم أهل الله في حديث بنان بقت من خيركم من تعلم القرآن وعلمه ku xam alquran di ko xamle alquran mooy raxsu bi mooy asaas bi alquran mooy fondement bi mooy bopp bi kon góor yàlla boobu dafay liggéeyam ci alquran jàngal ko ay nit yi nit yu bari daleet ñoom ca alifun baaun taaun di leen gunge ba egg ak ñoom ci boole ba egg ak ñoom ba am ay xufaas kasiran min an wa min ar loolu liggéey bu tedd la kooku waxtaan yi nga def ci moom rekk malaaka yi dégg ko dugal na suñu mbooloo mii fi teew ci inna zikra saalihin tanzilu rahmat aw tatanazalu rahmat wépp mm-hmm. wér na mm-hmm. dañoo jugee ziyaare seydi wa moolaya cheikh mouhamadul aqibu cheikhina wa murabbina amin tawallahu umruhu ñu jugee ziyaaram ñëw bay dugg ci Bargny ci presque cinq cent avant EDK bi du jugee Kaolack di ñëw benn oto double ñu ñëw di yéeg duudaan bi oto bi saaraan këpp ba wëlbatiku ba pono yi faree kaw asamaan bokk kaw oto bi nekk ci suuf suma oto ñoo toppoon ci ginnaaw alhamdulilah ñun xamuñ kan moo ci nekk waaye ñu tourné ñu taxaw droite ñëw pour sauver leen suñ oto ñëw droite nekk boobu moom moo ne ci oto bi ak ay taalibe mhm. yàlla àtte na sax ki dawal suma oto bi bi ñuy ñëw keroog mu ci oto ba ak ñu bari sama soxna ak nekkoon ak man mm-hmm. ñu ñëw benn taalibe génn ñu génne keneen ñu ne ma dafa am kilifa guñ àndal ba tey taxut ma xam ne kii sëñ daara la de mm-hmm. waaw ñu taxaw nekk ci nekk ci di wëlbati oto bi di jàpp ba yàgg kilifa gi daal di génn mu xool ko muy sëñ daara Souleymane Seck rek ma egg suuf waaw dañ ko ah kii du sëñ daara mu ne ma axa ah, kay ma daal koy tatafu saafoon teg moom euh, xolom sori euh, ma ne ko Baye Niass moo lay wan na moo ngi ànd ak yow mm-hmm. ndax soog bii oto bii topp sa ginnaaw ñun ñoo ngi jógee ci ziyaara Cheikh Mouhamadul Aqib mu ne ma man ba ma xëyee laa dem kër Cheikh Mouhamadul Aqib ca ziyaara ba kër Assane Diassé wàcce fa kaamil daal di fay jóge bàyyi fa sama addiya amoon yitte ma jaar kër ma jabel continuer dem Koungheul jógee Koungheul ñëwaat mi dina waroon a fanaan ci dakaar ndax dimaas ci suba dafa am kaamil bu ma fi war a tëj ma ne ko nag ñun ñu jógee ci ziyaara Cheikh Mouhamadul Aqib dajeeg yow ci àll bii sa oto këpp mbëkkoo kenn duudaan bi nga tëb oto bi saaraan wàcc suuf pono yi jëm ci kaw asamaan bërëngu ñett yoon suñ kanam ñu taxaw di ko gis kenn gaañuwu ci ku jigee ci Cheikh Mamadou Laqe bu fekkee ko sowee leen sama oto bii ci laa ko yab keroog maa ko yóbbu ba fi muy dal parcelle ma xam ne loolu yàlla moom ma ko teral ci moom loolu du man du moom mbir yàlla la ma ne ko ñu yóbbu la hôpital ci guddi gi mënuma dara jotuma ma ne ko ñu dem docteur yi seet sa yaram mu ne ma déedéet baax na dara jotul ñu bàyyi fa ñaari taalibe yoo xam ne ñu ngi àndoon moom ñoom kenn dara jotu leen te bi daf doon bërëngu ñuy taxaw di ko gis bërëngu na ñett yoon suñ kanam buñ paree ñaari taalibe yi dem ci station bi moom wax nañ dem ci station bi ñu siñaale garde yi ne choc bii moo tax ñiy ñëw pour ñu dimbale leen ma yóbbu seen daara ci yoon bi nag fàtte na sax ne moom ci choc la jógee muy waxtaan taarix bi nga doon wax mu ne ma sëriñ Aqibu 1900 xaw ma 78 xaw ma 80 laa ko commencé di ko wàcceel kaamil alxames bu jot ma wàcceel ko kaamil ci saalam mu ne loolu nekk naa ci ab ay at ay at ba mujj gi suma tànk diis ma yebal xale yi ñuy ñëw alxames bu jot dinañ wàcce kaamil ci saalu sëriñ bi alhamdulilah ba léegi kër sëriñ bi chaque jour dana am kaamil bu ñu fa wàcce bu bokk toog tur yàlla yi ñu fay sikkar loolu waajib la chaque jour kulli yow nii barke Cheikh Ahmed Tidiane xam naa waxtaan bi mën a gudd suñ dañuy tënk rek suñ paree danañ la jox yow mi borom quartier dinaa ñu joxe kilifa yi ñoo ngi nuyu tamit al muqaddam euh, euh, imaam Alioune Mbaye xàmmee naa ko bu baax euh, maa ngi koy nuyu di rafetlu teewaayam fii wax dëgg bi may nekk recette daan na ñëw fii ci daara ji di ñu ziar si di ñu nuy si ba yàlla def ko kilifa moom it mu toog fii jiite mbooloo di liggéeyal baay eh, yal na ko yàlla dëgëral yàlla dolli ko moom ñi ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéeyal baay maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sikarkat yi Cheikh Ibrahima Babacar Seck eh, alaaji ak eh, ñi ne ci taabal bi ñëpp nga xam ne ñoo ñuy wéttali ci Anda daax yi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Ibrahim tagg yonante bi di nuyu mbokki taalibe yëpp imam Mansour Cheikh Mass Baye As ak waa Rochette yëpp maa ngi nuyu waa Rochette yëpp Rochette fii dëkk naa fii fukki at léegi rek moo may wax Moustapha Camara ay yitteem Moustapha ci njëkk dugg ci fayda bi fii ci la bokk maa ngi koy nuyu di nuyu suma dëkkandoo Euh, xam naa liñ guddi la bu guddi toon damay jaar ci moom nuyu ko ma macha allah maa ngi bu baax euh, jotaay bi euh, waxtaan bi du mun a gudd na yàlla dafa dogal muy première jotaay ñaareel ba yàlla dogal heure bi ñu waxante woon ndok ndok am ci suba muy taw bi ba lu bëri fausé te man dama bëgg respecter heure respecter nit ñi respecter sa bopp respecte nit ñi respecté jamono respecte borom bi loolu damay bëgg di ci yar sama bopp di ci yar ñi may àndal di liggéey ci tool bi kon bu ñu waxee 17 heures ñu dem ba 9 heures loolu faw ñu wan leen ngànt taw bi amoon ci suba taxoon na lu bëree bëri ci moor li mu waroon def mo am ay gàllankoor waaye ñoo ngi ñaan yàlla jotaay bi ubbeeku na yàlla bu mu tëj ñu ngi ñaan yàlla at yii ca kanam ñu gën koy jekku ba buñ nee quatre heures quatre heures lay doon suñ nee une heure temps la ñuy wax wala trente minutes duñ ko passé nit ñi mën cee tëbboo lu leen di yokk ca xam-xam ak ay leer yu ñuy naan mën a jàll ci seen yeneen itte kon loolu damay bañ rek nit ñi yaakaar ne li yëfi sénégalais rek ku ne la nangam du ko respecté kon foofu ñu joxe tuuti justification ci loolu imaan muy ngëm yàlla moo njëkk ci jullit ci lépp lu jullit di def innamal axmaalu bi niyaati wa innama kulli imrin ma nawa lépp looy jëf te àndul ak éene éene ja liñ ci jublu mooy éene ju jëm ci yàlla loolu da nga jëf rek ci kasaara doo ci am dara kon imaan mooy li ñu takkale ak yàlla nga xam ne bàyyi dafay wax sax mu ne naa muridu yafna fillah li yutima imaanihi taalibe foofu mu jeex ci yàlla ngir ngëmam mët ñu xamee ci ne fanaaw ci yàlla ngëm yàlla tabaraka wa taala lay mëtal bàyyi wax na feneen ci beneen wax ne man lam yafna fillah laa yakmalu imaanihi képp koo xam ne amul jeex ci yàlla mu ne amul ak ngëm gu mët ngëmam du mët ci yàlla loolu moo tax a jóg ak tarbiyatu ruuxiya inda Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndax fayda bi pour delo nit ñi ci ngëm yàlla moko taxajul baye dafa wax ci kaasif wal hikmatu fi zuhuri haasihi al faydat fi fi al zaman al fasid difu al iman fi qulubi nas wa kasratu firq al dalat wal mujlati wa haadihi al ummatu ummatu al marxumatu fa ufidat ilayhim al ma'arif wal haqa'iq kay yarjiu li asli fitrati l imaani fafham baye mu ne li hikma ci feñ gi fayda bi feñ sagesse bi tax xereñteef gi tax suñ borom génn fayda bi ci jamono joju baye tuddé jamono ji fayda bi feñ jamono ju yàq fi hadha zaman al fasid mu jamono ju yàq baye mu ne iman imaani fi xulubi nas néew ak ngam yàlla dafa nek ci xol nit ñi néew ak ngam yàlla weddetuñ seytane toppatuñ yàlla mm-hmm. wa man yakfur bi imaani euh, na mu ko waxee sax maa moo yakfur bi imaani wa man yakfur bi taaquuti mm-hmm. wa yuminu billahi faqad istamsaka bil xurwati lwusqa ci war si wusqee mm-hmm. képp ku weddiwu taaxut wala ku weddi taaxut kooku mooy ki gëm yàlla te mooy ki jàpp ci bu gi dëgër gi kon bokk na ci gëm yàlla dangay ngay wane ci buntu baabul aqida ngëm ci xol lay nekk wala waaye ay cër ñoo koy feeñal al imaanu iqtiqaadi bil qalbi wal amalu bil jawahir kon da jëfee jëfi topp yàlla ba pare nga weddi it lépp lu seytaane dikkee ak ay nitam bàyyi mu ne nag fayda bi dafa fekk ngëm yàlla néew ci xol yi waaye wa kasratul firqati wa daalati ak bëri teqalikoo kuréel yu réer wal muddilati waaye yamuñ ci réer di woote réer bayti boobu bàyyi def ci jundu xadis yantu salaa salaam bi muy wax ne suma xeet danañ tàqali ko juróom ñaar fukki xeet ak ñaar mu ne ñëpp safara lañ jëm ba mu des benn mu ne nasaraan yi danañ teqali ko juróom ñaar fukk ak benn ñëpp safara lañ jëm afirqatu naaja kuréel gu mucc googu ku nekk yaa ngi koy oote ci biir jullit ñi ne ci yow la nekk ku nekk wax na ci mufassirin yi wax nañ ci ku nekk am na noo ko gisee waaye moom la bàyyi di junj foofu ne kuréel yu réer ba pare di oote ci réer wa haadihi l ummatu ummatul marxumatu te xeet bi xeetu yonante bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf leen yërëm xeetu yonante bi boo ko déggee jàngkat yi moomuñ wax ji dafa am la ñuy wax al ummatul ijabati am al ummatul daxawati dafa am xeet bi ñi nangu ak ñi ñu war a oo ñi nangu mooy ñi am tawféexu judd ci lislaam gëm yàlla ñi nangu mooy ñi jamononteeg yonent bi yàlla baaxee leen ñu gëm ñi ñu war a oo ñooy ñi feeñ ginnaaw yonent bi képp ku feeñ ginnaaw yonent bi ak ko mën a doon ci xeetu yonent bi nga bokk bu fekkee duggagoo ci lislaam kooku la wax al ummatul daawati mooy ñi ñu war a woo ci kuréel bi xeet boobu nag ñoom ñépp yàlla daf leen a tudd ci benn aaya moom la bàyyi di junju ne kuntum umma kuntum xayra ummatin uxrajat linnaasi taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah moom la bàyyi di junj ci bayti bi bàyyi waxam yépp alquran la dafay wax dara nga xam fan la toll ban aaya la lay junj wala ban xadis la lay junj ci wax bi lalee xadis la doon junj waaye fii moo ngi lay junj na xeet bi yàlla da na yërëm waaw ginnaaw yàlla dafa yërëm xeet bi yàqu-yàqu am na néew ngëm yàlla am na yàlla du bàyyi xeet bi noonu jullee ngi fi koora ngi fi asakaa ngi fi aj màkkaa ngi fi zikkara ngi fi lii yëpp am na ñu koy jëfee waaye teewut yàqu-yàqu tab bi na ci xeet bi yàlla du bàyyi xeet bi noonu bàyyi mu ne fa ufidat ilayhim al maarifa wal xaqaayiq كي يرجعوا لأصل الفطرة الإيمان ففهم باي من يالا ببل نك تي خيت بي المعارف موي خم خم معرفة بالله والحقائق اك خم خم حقيقي موي حقائق موي فيريتي دا فا نيا فيريتي ابسولي اك فيريتي دنگ ريلاتيف دغ جي سوبيكو اك دغ جي سوبيكو La vérité, elle est réalité. xam-xamu xaqaayiqa yooyu mooy xaqiqa ak maarifa nga xam ne dañu nuroo lool te dana am fuñ tàqalikoo dañu jege lool na maarifatu dafay dox ci kaw arkaan yi di la sëyru arkaan yi maarifa dafay ñëw fekk la ci biir julli mu jàngal la lan mooy julli ci xaqiqa taxaw bi lan la rukon bi lan la sigg bi lan la sujud bi lan la tok bi lan la hmm. maarifa dafa ñew di la jàngal waxtu yi lu mu nekk ñaar ci suba de nga maarifa mo ñew pour xamal la lool feqal islaamiya dafa ñew pour jangal la de nga faratay julli sun de nga sunnay julli ak fadail julli mom la ñew fekk ñew di la ko jangal nga xamé babu babu sahwi xàmmee jamaj yi xàmmee wa man zaada wa man naqasa loolu la fekk ñëw di la ko jàngal nga mën a rafetal sa julli ci ictidaal ci tumaanina ci niya lépp lillaahi ñeel yàlla tabaaraka taala maarifa nag ñëw di la jàngal lu tax suñ borom def ko ñaari ràkk muy suba kooku maarifa moo la koy jàngal mm-hmm. maarifa mooy ñëw jàngal la lu tax julli di dox ci juróom mm-hmm. taxaw bi di benn rukkon bi di ñaar sigg bi di ñett mm-hmm. sujjóot bi di ñeent toogaay bi di juróom maarifa mooy ñëw jàngal la loolu moo tax maarifa dafay ñëw topp asaka ba asaka jeex mu di la ko sëyru maarifa dafa ñëw topp arkaanul xajj di la ko sëyru dafa ñëw topp arkaanul siyaam di la ko sëyru moo tax xam yàlla bi bàyyi woote dafa nekk xam yàlla boo xam ne mooy maarifa bi rasulullahi doon dund mm-hmm. mooy maarifa bi nga xam ne moom la anbiya u yeeg mursaloon yi doon dund mm-hmm. mooy maarifa bi ñëw tegu ci kaw arkaanu islam xam sa mm-hmm. di la ko jàngal zahiran wa batinan do xam yàlla boo xam ne day bawoo ci ay xaatiru seytaan wala ay xaatiru nafsaan yi nit kuy wax loo xam ne du ko mën a lay ci dara xaqiqa nag mooy li xadir dund ak Seydina Moussa alayhi salaam nga xam ne ay mbir yoo mënta justifier la yu xóot la yoo xam ne nit ki daf ciy egg di ko jëfandiku te layam dégg nga li borom xam-xam yi wax ci salaatul fatiha bañ ca waxee nga ne li ba mu kawe na laa yudrikul aqli xel du ko jot léeg-léeg xaqiqa lu ñuy egg la waaye léeg-léeg du lu ñuy du lu ñuy mën a leeral waaye maarifa moom faw day daanu ci kaw aaya wala mu daanu ci kaw xadis ndax Baay dafa wax ne Cheikh Tidiane moo ko wax waliyu du dikkee mukk sariya bu bees mm-hmm. waaye dafay dikkee dégg bu bees alwaliyu laa yaati xattun bi charin jadid bu dikkee mukk charia des waaye dana dikkee fahmul jadid waaye fahmu bi nag day tegu ci kaw alquran ak sunna loolu moo tax maarifa bi bàyyi woote dafa jaax jaaxal képp ku mës a def suluk ci fànn boobu ndax nite gi taalibeem yi nite ak xam giñ xam leeru yàlla yi ak xam giñ xam maarifatul ilaahi ci xadaraatam yi ci xaqaayiqaam yi ci lépp loo xam ne baynal sifaat wal asma wal afaal loolu moo tàllaliku rek ñu teqal ca lii xadaraat li nasabaat li azalaat lii abadaat li dawair lii maqaamaat lii nàngam lépp boo demee ci jawaay rasaal boo demee ci sirul boo demee ci sirul akbar da ngay fekk bàyyi di ko teqale di ko génne di ko génne bay jàngale lan mooy sirul xaqiqi lépp xataa sax fanaaw bii nga xamante ne góor yàlla yu bëri dat nañ ci ray ko bàyyi boo demee ci buntu jas bu ci sirul akbar lay yim layal fannaaw dëgg dëgg da ngay xam ne sëriñ bii la yàlla jox xam-xamu maarifatu billah indi na ko waxul jaal xaq wa zaqal baatil innal baatil kaana zahuqa na ko fa nga xam ne sababu nuzul xam nañ nañ sababu nuzul bi alxuraan day firi ci juróom-ñaari dégg xërëm yi biñ ci kaaba gi yonent bi ñëw tàqale leen ànd ak saxaaba yi ñu dindi leen laay wàcc waxul jaal xaq wa zaahal baatil al baatil kaana zahuuqa bàyyi jël sa wujud bi def ko muy xërëm yi bi fannaaw ñëwee toj sa nekk googu delloo la ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu indi la waxul jaal xaq wa zaahal baatil al baatil kaana zahuuqa dëgg dikk na sa neen gi effacé wu dégg nga di fa indi di teg di indi di teg di indi di teg dégg nga nga xam ni kii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kii la yàlla samp pour mu kondir xam-xam bi moo tax ci sër euh, sër ak mu ne ci maj moo rexlaat mu ne wa man zaqaha yasiru sayr al abadi yatni al maarifi bi ma madid ku mos lii mu ne kooku am na sayrul abad bàyyi nag mu ne xeet bi yàlla indi leen maarifa ngir ñu am imaan ndax maarifa boobu mooy tax ñu dégg salawaat dégg xawaayid islaam yi ba tax nag ñu mën a delluwaat nag ci seen imaan bàyyi mu ne lu tax mu ne kay yarjoo li asli fitratil imaani foofu xam ndax ñu dellu ci seen cosaan ak sell ak ngëm nga xam ne daf lay junju xadis yonante bi sallallahu alayhi wasallam kullu mawludin yuladu ala fitrati fa abawaauhu yu xawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majisaanihi képp ku judd rek dégg dangaa juddu ci fitra da ngaa laab sa xol bi yàlla rekk ci ne xamoo keneen ku dul yàlla yàlla moo ànd ak yow booy nàmp sax kenn du wax dangaa ngaa war a muuci ween gannaaw gi nag la waajur yi di la orienté ba def la nga nekk chrétien wala ñu def la nga nekk yahudiya juif wala ñu def la nga nekk majus ku gëmu dara waaye yàlla moom wax na ci lisaanu nubuwwa dégg nga sallallahu alayhi wa mu ne nit ñëpp bi ñuy judd dañoo laab mooy sama ndigal mooy yonante bi sallallahu alayhi wasallam kon Baye wax na loolu ci kaasif ne loolu moo tax a jug faydu kon faydu képp ku ko dundut sa ngëm yàlla yokkuwut tarfatal ay ni yow boo yaakaaree ne yaa ngi ci faydu it da ngay nax sa bopp naxoo Baye loolu ala fokk ñu fàttali ko Baye wax na wax boo xam ne wane na moom faydu bi noflaay la waaye moom Baye. lan mo taxajuk a bi ginaaw bi nekké ci nit ki dafa wax ne min faydi raxati hadha al abdi an kasabi uhyil uluma kaza uhyil maarif la la mayla lil satxi wa da'wa wala al kaziba bi zahir al shari wa nur nuuril mubiina rabbi salikin bila sakkin wala rayb wa zalika al faydu min rabbi wa mansa'uhu haqiqatul Mustafa al jaali amal laib bàyyi mu ne tukkee na ci faydub noflaay ak jaam bii ndax faydu bi dafay jural nit ki noflaay digganteem ak yàlla mu ne ci diir bu gàtt uxyil uluma kaza uxyil maarifa mu ne dinaa dundal nag xam-xamu ulumaatu diin yi waaye dinaa dundal xam-xamu maarifa bàyyi mu ne liggéey boobu duma ko def ànd ak ay sataxaat ay waxi ku daanu ci saret ay waxi kuy déliré ay waxu koo xam ne du am benn argument du am argument ci diine du ci argument de dara mu ne duma ko defee noonu duma ko defee it propagande di woo nit ki ci suma bopp moo xam ci bépp façon woote lay doon wala kasi duma ko defee ci fen tamit ndaw lu bëri ci jamono nga xam ne fen moom dafa mel ni du daara ci nit ñi jàppal li baay wax mu ne ci lu gàtt danaa dundal xam-xam danaa dundal xam yàlla duma ko dundalee sataxaat duma ko du dundalee ay ay ay fen mu ne du ko dundalee ay propagande kon loolu képp kuy daxwa ci toolu fayda jàppal na baay moo ko wax yow sa woote warta am fen sa woote warta am leneen lu bokkut ak lu leer nañ mel ni midi bàyyi nag mu ne bi zahiri shar'in wa nuurul mubiin mu tàgg sariya sariya bu feeñ bii ak leeram gu fës gii rabbi saalikiina bila sakkin wala rey ci laa sóob sama gaa yi ci laa leen sóob ci lu amul sikk ci lu amul pexe amul sikki sàkk maa ngi julli maa ngi oor maa ngi jàng alxuraan maa ngi fegu maa ngi daw bon maa ngi bëgg yàlla maa ngi toroxlul yàlla maa ngi jaamu yàlla maa ngi woon nit ñi ci asamaan ak suuf si yépp yàlla def na nañ ko jaamu mu ne sariya bu leer boobu nag ci laa sóobe ci lu amul sikki sàkk waaye ci lu amul benn benn pexe wa dalika faydu nag xam leen na faydu bii min rab rabbi moo ngi tukkee ko ci yàlla tabaaraka wa taala fayda bi léeg-léeg tuddee ko ci yàlla léeg-léeg bàyyi tuddee ko ci yonant bi lépp benn silsila bi rek la wa man sa'uhu xaqiqatul mustafa al jaali amal laibu mun a faydu boobu nag fiñ ko fondement yee fiñ ko construire mooy ci dëgg-dëggi Moustapha fa lañ ko tabaxee ndax pay yàlla bi ibaadaat yépp ci xaqiqatu Muhammad yàlla ko tabaxale ci pay yonante bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla yebbee dëngal lépp loo xam ne toggeef la foofu lañ ko yebbee sallallahu alayhi wa sallam mu ne Moustapha moomu nag mooy ki nga xam ne mooy effacé silmaxa ak fo ku fo ba silmaxa nekk ci lëndëm ba sa xol bi silmaxa ba mënatoo dégg lu bawoo ci yàlla mënatoo gis lu jëm ci yàlla eh, cax la mu ne Moustapha moo moo mën a effacé koo xam ne dafa foo ba foom bi silmaxa ci moom sallallahu alayhi wa boobu nag loolu bu ko bàyyi waxee wax ko ci kibritul ahmar nekk ca jaamiw jaami war nañ ko teg wax boobu ci suñu kanam xam ne lii lañu war a liggéeyalee bàyyi ku ci nekkut yow boo tuddoo bàyyi amoo benn garanti ci bàyyi hmm. yaa nekk ci sa bopp rek ak sëriñ lum kawe maqaama kawe maqaama kawe maqaama mënu laa garanti hmm. loolu foofu nit ñi yeewu ci foofu nit ñi yeewu ci bàyyi taggaat na fayda bi jox ko dayoo joo xamante ne war naa tax ku nekk ci fayda bi xam sa masuliya hmm. parce que tagg bi daf na wa innahu bi faydi yanaalu diini raf aliwaa'i wa man saa a yaatihi xubayla mamaatihi wa man saa a naxwaahu ka ahli saqaay loolu dafa tagg fayda bi ci fayda bii la diine di amee yëkkatiku ak drapeau ndax lu tax góoru fayda bi danañ am imaan danañ am maarifa danañ am tamakkun kooku l'islam mën na dépendre ci góor góor góor googu fu mu nekk kër gu muy yeewoo mën na fa nekk xalifa rasulullah góor googu mën na nekk xalifa yonent bi ci quartier bi góor googu mën na nekk xalifa yonent bi ci entreprise góor googu mën na nekk xalifa yonent bi fu mu mën a nekk waaye jigéen ji xaal yooyu nekk ci moom it kazalik parce que fayda bi maanaa la ak ay saxsiyaat maanaa bi mooy xam-xam bi ñuy yëg pour jëm ci yàlla ak leer yi waaye jëmm yi mooy jëmm yi yeenu xam-xam boobu ak leer yooyu jëmm jooju nag kooku yi lislaam mën naa yëkkati ko ci moom moo tax bàyyi kon tagg na fayda bi ne ci la diine ji amee yëkkati ko mu ne kum neex nga dikkal ko léegi-léegi kum neexit nga dikkal ko waxtu wi ngay faatoo kum neex nga nag bay waaj a dee nga dikkal fayda bi bu soobee yàlla kum neexit nga dikkal ko léegi cheikhaan yi muqaddam baay bu mag la ci murtani bi mu ñëwee jàpp ci baay ba egg ci yàlla dafa am ku ko doon yedd na ko tarika tijaani cheikh tijaani garanti na fatku kon bu fekkee fatxu rek ngeen di wut ci bàyyi lu tax ngeen bàyyi seen isnaat bu rafet bi sënat bu rafet bii nga xam ne wéeruwaay bu rafet la ci tariqa bi andiw andiw andiw ba ci samaam si amoonul xaafis cheikhaani na ko fatxu boo xam ne misaal bi ma la ciy jox waxi seexaani ku dem bay waaj génn jamono ba yaakaaratoo sa dund nit ñëw may la sek sek bi xaalis bu bari nekk ci ak nii malakal mawta ngi nii taxaw wala rocc ruu gi ndax ñaar yooyu benn la mu ne ko déedéet mu ne ko waa fatxu boo xamante ne ci sa aaxirul anfaasi lañ la ko dikk dont sa mujj ay nokki la fatxu dana la dikkal ak Cheikh Ibrahima dalay may fatxu léegi léegi léegi na la dama liggéeyal yàlla dama jaamu ji yàlla ndax ñaar yooyu benn la mu ne ko kon du benn mu a ko kon bàyyi leen ak suñu Cheikh Ibrahima kon bu bàyyi nee kum neex nga ñëw léegi kum neex nga nga bàyyi ba waxtu way faatu ah, noonu la mu teg ci wa man saa nax waaw kaaxlu sa mooy lii keneen ku dul bàyyi boo ko wootee rek yóbbu nit ñi ci ak kéefër parce que da ngay jaawale pédale yi da nga leen di yóbbu ci benn maqaama yàlla rek a fi nekk yàlla rek a fi nekk boo xam ne yaa ngi koy baase nag ci ay tettal ci ay tettal sa waay xool ko moom la de sa waay gis ko nangam loolu mooy tarbiya suuf yaa ngi koy njëkk yi nga xam ne dañ lay yar xool ko alif laam laam astaxeer xoola sa ñaari bët yi sa ñaari paxa bakkan yi sa gémmiñ sa nopp dégg nga déedéet bàyyi dafa lay yóbbu foo xamante ne ha anta wa rabbuk ha anta wa rabbuk li an li walid ruhani wa yu rabbi wa yu raqi al muridu wa yu raddu illa aslihi hatta ha anta wa rabbuka wa kaana zalika haqqahu akbari loolu la wax sëriñ dafay yar taalibe di ko yéegee dello ko bam mu mujj dellu ci ciosanam monoko he ha anta warabuka ya ini sa borom ngi ni bay nak mune wa kana nek na ci lolu nga akbari mune mota haqq serign lu mag la way serign bu jaar ak yow fi lolu lolu nga bi dalil lolu du ay tetal parce que bo xamee maanaan asmaul tahlil يلا دفو تدو بات لا اله الا الله تي نينت فورمي دفو تدو لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وحنا لا اله الا انا فاعبدوني وح الله لا اله الا هو دنگ واخ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نينت مراتب يي يلا تودي بوبام بو دفوت سلوك تي دو مونا خامي مرتبه بو تي نيك لوتاخ ني يلا تودي فا بوبام نون لوتاخ ني dégg nga damiru damiru muqaatab huwa yëgi indi damiru qaib dégg nga kii ñëw indi laa ilaha illa ana dégg nga daal di mu daaf boppam ci boppam wala dégg nga wala kii ñëw indi laa ilaha illa daay daay def fanaaw ci moom loolu boo ameewut maarifa ci bàyyi doo mën a teqale yooyu loolu moo tax xam yàlla ki ko yàlla jox du débordeel ay nitam dañuy tegu ci siraatal mustaqim ba pare nag dégg diine kooku lislaam mën naa compter ci nit kooku bàyyi nag wax ne fa inni alamu zamanan yaati fi l mustaqbal wa ka bi manzilati maadi indi man lam yasluk tariqakum yaslukuha wa yandam maam saalum jaane la ko waxoon ca jawaayir risaal na ko seen yoon wii xam naa jamono ngi ñëw ci kanam jamono joju sax ci man dafa melni lu passé ndax woor gi mu koy wax woor gi ko lu woor na loolu day am mu ne ci man sax dafa melni jamono ji ñew na ba passé jamono ji ma leen di wax ne mo ngi ñew dafa melni lu am sax ba passé kep ku duggut ci seen yoon wi dana ci dugg and ak dana ci dugg and ak rëccu borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax bi firé nañ ko firé yu rafet yu sel yu mandu dana ci dugg rëccu gi moy. ay waay yéex naa ndeke xam na ndeke maarifatu billaay nii la mel ndeke yéex naa xam na ndeke dégg sa diine déggin bu wóor ba doo am gat doo am sikki sàkk ci wax yàlla tabaaraka taala nii la mel am ñu ne déedéet ah rëcc gi kat mooy dëgg-dëgg duggoo ci ba faatu dajeeg yàlla li bàyyi wax man lam yeneen maarifatu rahman ahmaru da at mada mada mada zaman ku amoon maarifatu sànq na diiru dundam ala kulli haalin bàyyi daal wax na ne jamono jooju dana ñëw loolu yëpp lu ñu war a xam la ci taxawaayu fayda bi taxawaayu nag kuy woote ci yàlla comme ni Cheikh Mor Thiam nekkee fii di muqaddam am ndigal ci sóob nit ba jëmee ko ci yàlla di nangu njébbal di maye tariqa tijaan ya liggéeyam li mu war a doon mooy liggéeyu yonant bi yonant bi salaa yàlla moo ñu définir lan mooy liggéeyam huwa allazi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhimu ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walhikmata wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubin loolu la yàlla wax mooy mbiram yonante bi yón naa ci yéen yonante boo xamante ne ummi yu la tukkeekoo ci yéen ñëw na nag ngir jàngal leen dégg nga kaawteefu yàlla yi ngir sellal leen tazkiya leen ngir jàngal leen téere bi te mooy atte yi comme ni nga xamante ne ne wen kaanu min qabl la fi dalaalin mubiin comme ni mu nekkee woon ci yéen ak réer gu biir kon képp koo xam ne am nga ndigalal jëmee nit ñi ci yàlla jàppal na xalifa yonant bi nga ci ñooñu nga jiite waroo war yonant bi ci ñooñu xalifa Cheikh Tidiane nga waroo war tariqa Tidiane ci ñooñu khalifa bay ñes nga waroo war fayda bi ci ñooñu yo amo droit wax leen lu may li nga déggee mbiri mm. waye fi ngay tibbee xam nga ko alxuraan munoo ko jéxal mëno jéxal wax yonent bi mëno jéxal wax Cheikh Tidiane mëno mm. jéxal wax bay mm. légui nak lan ca déggee mën na nek sawab mën na ñak nek sawab su boba yalla na fay seen kon loolu mo wara nek nekk liggéey képp kuy oote ci yalla kon su ko defee ñong koy ndokkeel li jihad la dajale ay mbokki talibé dajale ay dëkkandoom ne kaay leen ñu waxtaan ci yàlla jihaad bu am solo la yonent bi yàlla bi mu waxee ci alxuraan ne nañ wut wasila yaa ayyuha allazina amanu ittaqillaha wabtaqoo ilayhi alwasila la mu ci teg wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun kon wasila bi ginnaaw bi nga amee imaan am taqwa wut ku la ommat mu nekk sa guide spirituel yóbbu la ci yàlla yàlla nag daf ne wa jaahidu fi sabili na ngeen jihaad nag ci yoon wi kon yaag sëriñ bi da ngeen a war a ànd jihaad seen jihaad mooy jihaad ak bakkan yi mooy di jox def ay jotaay ci yàlla pour toj bakkan yeeg xol yi ñu ñeel yàlla di waar nit ñi ci seen guddee guddeeg seen i bëccëg bu jafe-jafe wàccee ci ñoom nga waar leen ci yàlla bañ mën a dund jafe-jafe jooju delluwaat ci yàlla ba duñ ci yàqoog yàlla bu bànneex wàccee ci ñoom nga mën leen a wan ni ñu war a dundee bànneex boobu ba ci yàqoog yàlla ba pare di tàllal kalimatullahi tabaraka wa taala comme li alquran wax ne ilayhi yasadul kalimu tayib wal amalu saalixu yarfauhu loolu moo war a nekk warteefu képp koo xamante ne da ngaa am sëriñ ngeen àndoo ci yàlla loolu moo tax daayira yi juddu moo tax ziyaara yi juddu moo tax gàmmu yi juddu moo tax majaalis yi euh, euh, maja majaalis euh, taalim yi juddu madrasa yi juddu dégg nga loolu yépp résultat wu ruuxu bee xol bi mën a am xalban salim daa iman abadan sarmadan comme ni laaya ji wax ne yow ma laa yanfu maalun wala banuuna illa man atalla bi xalbin salim pour nga mën a sax ci maqaama boobu dëkk ak yow ba ba ngay dajeeg yàlla dajee gi nga xamante ne bàyyi nee na nit dana dajeeg yàlla ci xaal fanaa waaye nit ki dana dajeek yàlla ci dee yàlla gërëm la yonantam gërëm la dégg nga sa wasaa ilim tegoon ci sa kanam yépp ñu nekk ay sifa ci yàlla gërëm la nga am maqaama bu kawe nga xam ne moom la bàyyi di ñaan allahumma inna nasaluka ridaaka wa ridaa nabiyika wa ridaa ca ñaanu wasifa yàlla na ñu may sa ngërmaane may ñu sa ngërmaane yonant may ñu ngërmaane waajur may ñu ngërmaane sëriñ si dégg nga ngërmaane yàlla lu am solo la kon lii moor def ci jihaad boobu la walazina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa al muxsinin yàlla daf ne ñii jihaad ci ñun yàlla bàyyi mu ne ñii jihaad ngir sàkku xam ñii jihaad ngir tàllale mbaax ñii jihaad ngir jubbanti dégg nga yàqu-yàqu yi yàlla mu ne dinaa leen teg ci suñuy yoon waaye wa inna allaha la ma al muxsinin yàlla nee na maa ngi ànd ak muxsinin yi mm-hmm. maayatu yi yàlla tudd ci alquran bu ci nekk dafa am xaal bu wax na ci lay àndal yow mm-hmm. wax na inna allaha maa sabirin mm-hmm. foofu nga am maqaama sabru ci mbir yàlla ànd ak yow dimbale la ci maqaama boobu inna allaha la ma al muxsinin foofu nga nekk kuy rafetal Yalla, anda ak yow ci halu muhsin bobu dimbalal inna la inna la xaribun minal muhsinina yalla ku jegala ñi nga xamne dañuy selal inna la ma ladina ittaqaw yalla mo ngi and ak ñi nga xamne ragal nañ yalla maayatu yuyu leg leg da ngay fekk borom bi di tekkale ci ay hal hal moy comportement mela sangam yalla dik ci ma ngi and ak yow mela sangam ma ngi ànd yow mela sangam ma ngi and ak yow lol yep nak seyru nit ki dafa war a dox pour dégg nga axlaaq yooyu mën a egg ci moom moo tax di wax ne fa xazibu al nufuusa wal axlaaqa li kay tasuunu sirra wal azwaaq na ngeen setal seen bakkan ci gàkk-gàkk yi ndax ngeen mën a tax siin ngeen mën a aar li ngeen mos seen mbóot ak seen mos-mos zawqiyatu yi ñu am ci yàlla mos-mos yooyu pour ñu mun koo aar foofu ñu setal suñ bakkan ci jikko yu ñaañ yi تبارك الله بيد أن الفتح نفقة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة وإن بقي على المجاهدة وتدحير عن رزايا الأخلاق سكن وإلى طار فيرجع, فيرجع إلى الظلام كمن رأى في المنام يحب شيئا واستيقظ باي من فتح ابن ubbin la boo xam ne pays yàlla bi mooy xëcc xolu jaam bi sànni ko ci pays bu jam bi desee di xeex ak bakkanam ci jikko yu ñàññ yi bi ngay def dem ci yalla waxtu wo ya gëna a daq dàq koy kuy salatu fatiha dafa foot sa ruux gi foot sa xol bi dila dila dila di sang di sang sa xol bi di deñ di sang sa ruu gi di sang sa xelmi ba sa lepp nek fi la ilaha ilallah jeex ci yalla tak tabaaraku taala bay mu ne effort bobu nga defoon ba deñ ci ñaan yépp mu na nga ci saxaat mu ne boo ko defut sa fatxo bi day naaw nga mujj mel ni dellu ci lëndam mel ni ku te tëddoon di nelaw gént gis loo bëgg ba mel ni sax kuy réaliser sa projet boobu ci li nga gént far nga yeew na affaire bi gént la danay daal nit ñu bëri ah kon nag li Cheikh moor def ah, ah, góor góorlu wax dëgg fa yàlla ànd ak sa sëriñ ak mbëggeel ak dëggu ah loolu dafa def li Baay wax rek li Baay wax ku ko def danga am li ci bàyyi teg wa kun ma asseyqi dawaaman tarbahu wa kun muhibban waamiqan fal tuflihu bi xadri ma tuhibbuhu tanaalu am daaduhu fal qawmu haza qaalu loolu la bàyyi wax waaw ci loolu la nekk nga nga ànd ak sa sëriñ dawaaman mu ne da nga jëriñu na ko bëgg nanga ko sopp mu ne fal tuflihu da texe bi xadri ma tuhibbuhu tanaalu am daaduhu fal qawmu xaalu haza kem ni nga bëggee rek noonu la tëbb yi ñëwee ci yow wax dëgg fa yàlla ñoo ko yar ñoo ko jox tariqa tijaaniya ñoo ko sóob ci tarbiya ñoo ko bindal ijaaza bi muy ndaw ba léegi bëgg yàlla rek euh, góorgóorlu ci xam-xam dégg nga jàng na te ba léegi moo ngi ci njàng def na ci école yi yàlla may na ko lu bari ci li mag ñi toogaale sonnee na ko ba am ko yàlla may na ko taxawaay yu kawe ci xam-xamu asraar eh, nekk it koo xam ne mu ngi suivre suñu bëgg-bëgg ak suñu yar ak suñu école ci fayda ñun ni ñuy dundee mu ngi ciy góorlu ba ñaan bés bii ak ci xat-xat yim ñu fekkoon yépp teewut ñu nangul ko ko xam ne moom it faw mu ubbi yoonam dimbalante nit ñi ci fuyoo daal ne ci xolam ak lim jot a tànk foofu moom it mu partagé woon ceeg ñi ko yàlla booleel ci ay wëllëreeg ak i loolu rek ak yaatal liggéeyu Cheikh Ibrahim loolu rek mooy yéenam ci jotaay bi waaye newut lum jekku sax newut lum mën sax waaye xolam fees na ci ne foofu daal mu wane participation ci fay du baay bi ak ci diine ji ak ci tariqa bi fow daal mu yëngatu pour rek tasaare leer googu loolu rek mooy objectif am wax dëgg wax na ma nag ne waa Rochette yëpp jàppale nañ ko kilifa yu bëri politiciens yi nekk ci gox bi ñu ci bëri ñëw nañ ndokkeel ko jox ko seeni soutien na ko dugalal ñu ci bësu yiw bii ngay def léegi xaritam egsi na fekk maa ngi waxtaan euh, muy sëñ Konaté Mamadou Gissé du gisee nga xam ne ñëw na ay yoon ñëw ziar si ma nekk wëllëre ci euh, Mor nekk ndooram di dimbalanteek moom ñoom ñaar ku nekk di taxaw sa morom nekk nit ku baax ñëw na ci jotaay bi ngir ndokkeel wala réem ak sàkku tiyaaba en tant que jullit sàkku fi ñaan sàkku fi déglu lu koy yokk ci yàlla ak jàppalanteeg wala réem boo xam ne yàlla boole na leen ci jamono ñu ànd maa ngi rafet lu teewaayam na am na yitte ba ñëw ziyaar si ma ñaari yoon yoo xam ne day ñëw ba sama kër ñëw nuy si ma yàlla na ko yàlla taxaw fajal ko aajoom vraiment ni ma ko waxee ci njëlbeen waxtaan wi daal dama ko def rek ci lu suma xaal laaj ndax mbooloo mu aju ci faydu ak ay soppe foo ñu fàttaliwante dara waaye nekkut lu ma waaj comme ni ma ko waxee ci njëlbeen wax nga xam ne amoon naa yéene wax ci imaan bëggoon cee bind fàttaliwaat nit ñi dayoog imaan dégg nga waaye comme ni ma ko waxee rek euh, nekkoon nañ ci ay yitte bu mënuñ cee jekk waaye du tee moom ñu waxante loo xam ne buñ nee bàyyi nee na defe naa ne loolu euh, ñëpp mën nañ cee jëriñ loolu daal la suñu xaal yëgoon yal na yàlla nangu jotaay bi lépp luñ ci juum yal nañu ko yàlla jéggal lépp lu ci rafet yal na ko yàlla nangu Cheikh moor yal na ko yàlla samp euh, yal na ko yàlla dimbale yal na ko yàlla aar vraiment xadara bi kontaan nañ ci moom ku oyof la fépp fu ma war a dem taalibe lu mu tuuti tuuti nga xewle loo xam ne dama fa war a teew moo lay gën a bëgg jotaay bi damm na lu dara jaam damm lépp loo xam ne may naa ko ci ndigal dootoo ko xàmmee ndigam lay takk ñëw taxaw foofu dégg nga toppatoo loolu ba ma ñëw ba dem mu nekk tarbiyaam nekk xitmaam loolu mooy xaalam ci daayira bi magi taalibe yi magam ci xadara bi comme ci dajeel daf laa jàpp wàccuwaay yaay sama sëriñ ci kaw sëriñ bi waaye ñëpp nangul nañ ko mbëggeelam ci man mbëggeelam ci Cheikh Mamadou Latou mbëggeelam ci Baye Niass waaye mbëggeelam ci mbooleem muqaddami baay bu bàyyi gërëm ndax ñun suñu école ci fayda képp ku bàyyi gërëm dañ laa rendre hommage xàmmeewuñ loolu waaw loolu loolu ñun xàmmeewuñu ay déedéet yooyu daanaka ñu manqué koy def waaw ñu nit ñu manqué ñi ñooy mottalikoo yooyu waaw euh, ak di mottalikoo ay darajaat yoo xam ne Eh, yooyu daanaka ku manqué moo koy def mm-hmm. waaw ku manqué benn ñoom moo koy def eh, eh, xam nañ dëkk bi waaye yàlla def nañu ñu doylu waaw xam nañ dëkk bi ndax man li may xeebu xeebu xeebu 2007 laa njëkk a dem palais de la république kon donc am na lu ma xam as tuut ci dëkk bi mm-hmm. kilifa yu bëri xam naa leen waaye toujours Cheikh Mouhamadul Aqibu ku yar am fum mu jaar ak yow wax dëgg fa yàlla dëkk bi lu yëngatu yëngatu yëngatu yëngatu war naa am loo xam ne du sa cër benn kaset baa ñëw si ngi wax naan lu àdduna jaxasoo jaxasoo am na ñoo xam ne waruñ leen cee bokk te ñu may waxal xam ngeen seen bopp waru leen cee bokk ñëpp a ngi déglu kasetu baay boobu tey nag ku nekk da taxaw ci ne naa am këru sëriñ si ñu ci bëri faaleetuñ sax taalibe bu jaamu yàlla mën na dara la ñuy wax baatul mën na dara diw mën na dara su ko defee taalibe yi bëgg yàlla buñ gisee na léegi dañ leen a marginaliser dañ leen a ñàkkal fayda négliger leen ku ci sa xaal dëgërul ak sa maqaama dangay ngay rékkeeku na man naa dem wuti xaalis rek ndax ginnaaw kilifa gi ma bëgg bala maa fonk jox ma daraja damaa am xaalis léegi naa def li tubaab yi wax tous les moyens sont bon ñii dem jaar ko ci wàllu yàlla ne ay sëriñ lañ di ndax nit ñi ñii am na ci ñoo xam ne sax nee asamaan la ñuy faraari des na ci nag ñu war a faraari suuf juróom dégg nga loo xalaat tey ci jamono nit a koy wax ci internet bi ngir bëgg ku la gëm waaw loo xalaat kii na day xar géej gi kii ne Jibril day ñëw ci moom kii na Iblis day ñëw ci moom parce que egg nañ ci bassesse ci ak suufe ba kenn amatul contrôle rusatoo yàlla rusatoo yéen ruugu gu xaru ruugu xaru borom dootul am état d'esprit bu normal dootul calcul day tërërëri di dox parce que naa am xaalis rek après bu ma amee xaalis léegi kilifa yu mag yi bu dee ci wàllu pays bi su ma demee seen entourage danañ ma faciliter kilifa gi dana ma seet si bu ma ko invité wala danaa ko seet danaa jël moom ay photo wan ko Baay Ñas nee na ci kaset ñett ko sàkku seen ngërmaane te yàlla jiituwu ci buñ la gërëmee zéro du bàyyi wax taalibe bu sànq ak yàlla yi loo wax mu ne sama sëriñ bu ma gërëmee mu ne bu la gërëmee zéro doom ji sànq ak yàlla yi loo wax mu ne sama waajur bu ma gërëmee sa waajur bu la gërëmee zéro dégg nga jabar ju sànq àq yàlla yi loo wax mu ne sama jëkkër ma gërëmee bu la gërëmee zéro ñett ngërmaane yépp sax na ci sunna ngërmaane boroom xam-xam ngërmaane waajur ngërmaane boroom kër ci ci soxnaam waaye na fekk yàlla jiitu yàlla mi may sëriñ bi xam-xam may ko martaba ba ba nga def jàpp ci moom warta war yàlla ci taalibe bi yàlla mi bi la def jëkkër ba jël kàddu soxna si na lay yaram ak xitmaam yow laa ko laaj waroo ko xañ yàlla yàlla mi la may doom na la maa la ko may yow laa béngalee yaram ak dundam yaay askanam waroo ko xañ yàlla waaw bu bàyyi waxee lii tey ngay dabu ngërmaane ab sëriñ teg ko ci mooy yàlla sëriñ boobu takkoon rajo senegal yi yépp adduna bi kaay leen sama ndonga lii gërëm naa ko ba aras yàlla du ko validé balaa déwén yàlla di waxi sëriñ bi war na kii nanguwuma ngërmaane ji kon mbir yàlla yi du fooyekaay biñ demee nag ba nga xam ne léegi nit ñi foofu lañ toll nga dem ci politiciens yi nga xamante ne sax ñoom am na ci politiciens yi ñoo xam ne dañuy saaga sëriñ si dañuy dugg seen oto ne sëriñ si gëmuñ dara lu may xaalis boo indee seeni malet jox leen sëriñ si jël calme nga nekk nag face ak population bi léegi nag seet noo def ak ñoom loolu ba kañ loolu ba kañ bu ko defee nag sëriñ Aliou Cissé moo waxoon imam Assane na ko Assane àdduna bii ñu jëm lépp looy defal nit def ko ngir yàlla mu ne ko àdduna bi ñu jëm lu bari lu baax looy defal nit loolu lay jël def ko ngànnaay xeexee la ko yow mi koy defal te inna allaha laa nudiu ajra man amila saalih yàlla du sànk mukk jëfu nit ku yiw boo defalee nit ngir yàlla moom bu la waree ci làmmañam ak jëfam inna allaha laa yaadi kaydal xaainina yàlla mooy méngoo sa mbir fay la jëf jooju ci sa yéene toroxal ko moom kee ak ku ko mën a jur ak ku mën a doon loolu yëpp day tax ñu delluwaat ci tabax suñuy jëf ci suñuy yéene bu ñuy dem ci jotaay ñu am ci yéene ju sell suñuy joxe addiya ñu am ci yéene ju sell bu ñuy jàngale diine ji ñu am ci yéene ju sell bu ñuy atte diggante ñu am ci yéene ju sell buñ ca amul rendre hommage kañ ñuy kañuy jëflanteel am ci yàlla subhanahu wa taala mi ñu takkee fukki at ak benn dëkk naa ko fii musuma def jotaay bii nii musuma ko fee def jotaay yi may def si kàmbaaw laa ko doon defee ci terrain football bi mais moom la ko yàlla dencal dégg nga te def na ko dégg nga euh, euh, euh, ak yéene def na ko ak mbëggeel waaw te yàlla bu mu doon sa mujj ak jotaay yàlla na la yàlla mooy jotaay yi bëri ci dëkk bi lépp nga def ko rek ngir dundal diine ji dundal fayda bi borom xam-xam yi mun koo waaj mën a tuur ay xam-xam yoo xam ne buñ ko enregistré di ko wéttaluku ku ne dana ci jële njàngat yu xóot dégg-dégg yu leer yu xóot yoo xam ne dana nekk loo xam ne dana mën a wéttali nit ci diineem wala ci faydoom wala ci tarixaam yàlla na la ko yàlla defal xadara bi kontaan nañ ci yow parce que lii nga def xadara bi yëpp nga ko defal yaag ñi ànd ak yow ñoom Boubacar jóob ak soxna yi ànd ak yow yëpp ci mbooloo mi ak sa xarit yeeg ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla defal leen fa aajo yal na yàlla taxawu leen vraiment loolu daal moo doon kàddu yi ah yàlla may ñu fekkee déwén ñu delloowaat kàddu gi bu ko defee kilifa yi war a ñoom joxe seen contribution feeñal seen sant yàlla su ko defee ñu tëj ñaan daal di yeewu ndax toogaay bi vraiment xaw naa yàgg ci nit ñi te ñu ngi leen ci jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw sant yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam ñii ñaan yàlla madad cheikh na ahmad tijaani ak madad cheikh ibrahim yàlla na dotteeg suñu yow di gàttal wax ji rek ndax akmalta wa ak aqsanta kàddu gi mat na kàddu gi rafet na kàddu gi sell na kàddu gi tamit ay tazkiyaat la mu nekk jàngale boo xam ni bu ci toppaate rek amaan na mën nañoo xajamal li sëriñ bi waxtaan di giital nuyoo bi rek ci kuñ ko tuddee muy Cheikh Souleymane يالله دفن بكون غور الزاوية شير محمد الحبيب التجاني ففلا بخميون سغربي بنوك يالله يبي برزق يالله يالله إيجاد سبرزق ما ولا شير محمد التجاني شير دي نيوت من سلمي شيخ صغير واجي وحلي شيخ كبير سيدب ديوكو واتشو واتشو وايم ديوكو تتجعل تمتي si di am yëg-yëg di fekk ay jotaayam xëy ne tey la ko yàlla soo ko dogal Cheikh Mor mosuñu gisee fii lañu gisee man nag moom dafa maa woo téléphone rek ne ma sëriñ bi dama am programme ma gis ni nga mel si sëriñ bi ma bëgg nga teew 18h ba léegi maa ba léegi maa ngi moo ma ne sëriñ bi 18 18h lay kon du teg génn sëriñ bi di ma tatagal mais man maa war a ñëw tatagal sëriñ bi kon alhamdulilah sëriñ bi. لمسي وحرك ماي جتاي بجتاي سيد أحمد تجاني فاسقاب الشيخ تجاني لا يرى إلى الشيخ تجاني وأصحاب الشيخ الحليل تعلقوا وتحقوا من كنوا الشيخ تجاني من يوم الله أن وسي إسلام تبين من يوم الله سنيا بني سيد أحمد تجاني لك وحرك الله عنه benn bi Mawlana Cheikh Ibrahim da ko wax te sëriñ bi jàngale na ko mooy lan Cheikh Tidiane dafa ne fa iza sami'ta anni shay'un fa zinahu fi mizan shar'i fa in waafa faf'uhu in qala fatrukuhu te waxtaan bi yëpp su loolu su loolu doon rek la tënku Cheikh Tidiane dafa wax ni lépp loola dégg man Seydi Ahmed Tidiane wax naa ko wax ji lu mu éloquent wax ji lu mu rëy wax ji nangam nangam. شيخ جمال نتل سنيار الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أم تسلس القرآن وحي أم تسلس وحي صلى الله عليه وسلم شيخ جمال جل موي سما كاد من سي احمد جاشي لول ما ولي شيخ جاني دو ووتي موك شريعه المحمديه باي نيس نيو بي زائد الشرع والنور المبين الرب السالك بلا شك ولا ريب mooy waxu sëriñ bi rek bàyyi dañ ko laaj fan nga jëmale say taalibe mu ne si ñaar alkitaabu wa sunna moo tax bàyyi waxaan laqad qaaba majzuban saax wa tamarrada walam yuxshi ani taati bàyyi mu ne màlli ana huda laqad qaaba torox na laqad qaaba kutus na alkul majzub ku firtule na xam na yàlla wa tamarrada ñu déngi déngi mu ji daan tey bay ñàkkal fayda julli damay doylu julli la may fan di wax rek koo su ne kay julli tey ñu ne fanaaw koo ne kay woor la fanaaw te du fanaaw mukk si soxnaam bu lekk jotee du fanaaw bu naan jotee du fanaaw bàyyi ma ne wata marada wala yuxi ali yàlla bàyyi ma ne mali ala huda kooku néew si jub suma taalibi moo tax taalibi Cheikh Ibrahima bu ñu koy xool lu néew lay doon lu bàyyi xool su may taalibi ngëbu ceeb doy na leen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 فكل ما أنزلته فله انتهاء يبقى بعده الفقر ربي إني إليك فقير فما يكفي الفضل عن العفو ولا العفو عن المغفرة ولا المغفرة عن الإحسان وكرم الجم الذي لا انقطع له أبدا فكل ما سواك لا يغني عنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير الرازقين وصل وسلم على سيدنا محمد واقبلنا واقبل إلينا بوجهك وأدم علينا سترك وعافيتك وعطاياك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا أسألك من فضلك بفضلك ومن كرمك بكرمك كل ما للقوم من المواهب والعطايا والمعارف والفتوحات والعلوم والإلهامات يا سميع سمع الدعاء ومذهب البرهاء إلهي قد وقفت ببابك الذي أن الشائل لا يخلق للتجود علي رزقا واسعا وحياة طيبة وولدا صالحا من زوجة صالحة وطويل اللهم أمري في طاعتك ولا تفقدنا حيث أمرتنا في مواطن الكرام وقبل اللهم دينا حيما ومعونة طيبة وسترا جميلا لا أرى في حياتي إلا خيرا تلو خيرا وبعد مماتي اللهم أقضي حوائجي وحاج من أسند إلي حاجه ونجينا من كل شر وشر كل مخلوق في الصباح والمساء ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما